jërë nga jëf mbokk yi seetaan Tektal TV ñu di leen wan lu spécial ñu ngi nii ànd ak waa équipe Tektal TV ñoom Baye Massamba Diop docteur Wade Petit Sow Gawsu Sow ànd ak sëñ Modou Karalo ànd ak Adja Diop soxna May Marème Diop madame Seck ak soxna Yacine ak sëñ Fallou Mbacke Diop ak soxna Zeynab ak soxna Mam Xari ak soxna Kebe yëpp ñu ñëw si lu doy waar gis ngeen image yi leen di wan ci biir dëkk bi docteur Wade lu ne am na sëñ Fallou ñëw na kon lii moom yéen ko déggal seen bopp

Mzee Midilelo. mooy nuyu na leen. Sagombe oo aña oo. Mzee Midilelo oo aña oo. oo aña oo. Ako aña oo lamitare kurike kumanze Sagombe oo aña oo. nañ bu baax kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax kontaan nañ ci romb leen euh, gis leen eh dem leen ci fekkee ah waaw kontaan nañ ci gis leen fii vraiment parce que gis nañ leen ci télé bi ak cosaan ak culture mu neex ñu bu baax a baax a baax a baax vraiment du mooy bois sacré ah bois sacré kon euh, ngeen ñaanal Sénégal taw bi nawet bi barkel nit yëpp am jàmm accident bañ am yàqule bañ am surtout nguur gu bees gi toog ñoom président Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko ñu am jàmm ba Sénégal raw France ngeen ñaan baax a baax ah ah, ah, ah. Oh. Sonko. Sonko. Sonko. Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Ousmane Sonko am jàmm kon di ngeen ñaanal Ousmane Sonko moom jàmm Sonko Sonko Sonko Sonko jàmm Sonko jàmm Sonko jamay jamay Sonko jamay jamay Sonko jamay jamay jamay Diomaye Sonko Diomaye Sonko Diomaye Sonko Diomaye Sonko Diomaye Sonko Diomaye Sonko Diomaye cosaanu Joola la Ñaasiya ah, Joola Ñaasiya Ñaasiya hmm. ah léegi lii bu ko defee ba pare tëgg bi lan lay jëriñ ñu liru woolo ah ñu liru woolo ah <laughs> Las Malick Touré Sadio Mane ah dégg nga wolof déggu ma wolof. déggoo yaa ngi wax wolof ah, di. ah euh, bu tuuti bi di mënuma wax ak ki nga ah. wax waaw. ok ah. xale yi ñu ngi xale yi ñu ngi nii. yow waxal yow dégg nga wolof ba tëgg bi lan moo ko waral. lu mu <laughs> ah, li cosaan bu yàgg la moom. cosaan bu ñu ko defee at yooyu man fekk juddoogu sax. ren laa koy doog a xam. ren nga koy doog a xam waaw. ah nañ ci jàmm génn ci jàmm tamit. yàlla nañu yàlla jàppale ñu am nawet bu baax. amiin ñu ñaanal président bi. ak Sonko. waaw Sénégal gën a jëm kanam daal. Sénégal gën a jëm kanam. waaw loolu la ñuy ñaan. incha allah waaw ñii ñaan Sonko ak Jomaay am problème dégg ngeen li Jomaay wax nee na Sonko moom Jomaay neen dafa yéene woon Sonko mu doon président kon bu doonee premier ministre benn lan ñoom ñaar dañuy jëm ca kanam kon. benn famille bi la benn famille bi la benn famille bi la te diggante Joolaa Joolaa ak Séeréer. waaw du mës a tas. du mës a tas. te day continuer ba faw. day continuer ba faw. waaw kon ngeen bàyyi ko xel kontaan nañ ci yéen yàlla na leen yàlla defal jàmm ak xéwal ak sutura ak seen njaboot yëpp euh, ngeen barkeel seen liggéey bu baax a baax kontaan nañ ci bu seen leen daal ndax da ngeen baax bu baax a baax léegi yéen ak ñeen euh, dañ gis ne kii tën yi bokkul lan moo ko waral coiffure bi ni mi mel nii lan la loolu la woto bi ni ngeen woto lu ko indi. mooy mu nekk ñu nekk ci àll bi. ñu nekk ci àll bi waaw mooy cosaan joolaa. Ah. waaw loolu moo tax ñu watu gis nga ni ñu watoo ñun ñëp hmm. benn la. ñu wodoo sër yëpp benn la. ñu takk càkk benn la. waaw loolu la ñuy tuur foofu. si suñ tuur bu mag bi. ci tuur bu mag bi waaw. Hmm. Hmm. léegi lii ku ko sa famille di def euh, sa force nga def ko wala bu la neexee nga dem France. Eh, da nga koy def. da nga koy def waaau hmm. cosaan bi yëpp lu ñu war dañ koy def foofu. dañ koy def foofu waaw. Ah, kon daal 30 ans la fu mu nekk nii. waaw waaw. am na ko def defaat ko wala. maire yi. ñun fekkewuñu. fekkewuñu yi maire yi Maguette jële. Ah, yi ñoo fekk première édition yi quoi. waaw ah, ah. buñ ko defee premier ba année bële ñun hmm. fekkewuñu. waaw ñu bëre fii fekkee juddooguñu sax. Hmm. waaw moo tax defaat ko ren nii. waaw. kañ ngeen ko defaat fii 30 après. ah.

ah day ñëw. day ñëw waaw. Ah, ah. bu say France day ñëw ok. bu dee cosaan bi bëgg nga ko daal. bu jotee da ngay ñëw. Hmm. waaw fii moom boo sëylee dafa bokk. léegi sa jëkkër dina am am ñaari jabar wala benn rek lay am. même bu amee ñetti jabar su buggee rek cosaan bi rek. Ah. dina dugg mais foofu moom jigéen yi sëy rek ñoo fay dugg boo sëylee dafa bokk. dafa bokk waaw. ok moo benn xale daal. fan ci. waa Tektal TV YouTube. waaw incha allah ngeen ñaanal Tektal TV Tektal TV ah kon ñaanal leen Tektal TV ca kaw ca kanam. comme ñaanal leen yéen tëb dina avancé ah. waaw waaw incha allah dina avancé. ñu nañ leen ñaanal ngeen gën a jëm kanam daal. amiin amiin amiin waaw ngeen ñaanal Sonko réew mi daal Sénégal jëm kanam. amiin ku bëgg lu baax rek mu yomb la lu bon nag yàlla bu mu jëf bu mu am. amiin jërëjëf. kon kontaan nañ ci jaar bin fi jaar. ah ah Sonko. Sonko indi ba ngeen ngeen gis ñu neex na leen. ngeen jël kanam. ngeen da dem. ñu dem ah, merci ah. ciao merci. jaajëf. jëf mbokk yi Tektal TV. Euh, ñëw ci Casamance Ziguinchor indil leen loo xam nag euh, lu extraordinaire la kon gis ngeen euh, ñi ngi àndoon ak Adja Diop mu mer magu kan Adja Diarra moom xam naa dina bëgg yi Abdou Khadir moom ak Mokho moom ña nga dakaar Dakar gisuñu yi gërëm nañ tamit Mohamed Ndiaye assangeur fële ca Palme de Mallorca Ousseynou Ly Allemagne Mami fa France Sayer Fall Espagne Euh, docteur Wade moom mooy indi lii nga xam ne que dañuy ñëw ci côté bi gis nañ ko ne euh, docteur Wade Ousmane Ndiaye borom forage bi forage yi dina toppatoo bu baax a baax a baax maire kantaan nañ kontaan bu baax yàlla na yàlla def jàmm ak sutura bu baax a baax a baax ak xéwal PC ñee il faut ñu ñamal leen euh, benn minute parce que comme ñu ngi ñuy xool bu mel ne kii ñu enseigné dem jël leen ñeneen ñi tuuti. ñu ñëw ba ak Tektal TV bu baax a baax abonné ne furus bi bés cloche bi émission bu ñëw ngeen am ko bu leen daw de aja ñu tuuti. salaamaaleykum maire ziar nan la ñu ngi ziar ba lépp jàmm ñu ngi lay ziar kontaan nañ ci yow baax kontaan nañ dégg ngeen ci ah, gis leen ah yàlla yàlla defal leen jàmm ak sutura ah. ak xewal bu baax salaamaaleykum ñu ngi leen di ziar ñu ngi wàcc seen leen rek kontaan quoi salaam ñu seen leen ngeen kontaan ak aar bi ak yëpp ñu jël ñee eh. ñu ne xaw ma da ngeen war a dem fenn gis ñii sol yee yéen sol yële mais kontaan nañ seen liggéey daal di ñaan yàlla mu defal leen barke ak sutura. amiin parce que euh, li cosaan la. aar la. aada la. te ñun télévision Tektal TV lañ yor buñ ko gisee rek dañuy bëgg wane leen pour fesal seen mbir daal bu baax a baax ñu xam ne cosaan rek moo wóor te nit daf koy fonk daal. dëgg la ah, ñu ne lii depuis 30 ans euh, ngeen ko lan koy def nii. Mm-hmm. waa léegi mu balaa 30 ans waat xam ñu ci bari xale lan woon wala ñeen ñi juddoogul. Mm-hmm. kon euh, yéen ñi fekkee bii. Mm-hmm. yàlla ngeen fekke waat ay yeneen. ñeent ak gudd fan. ak wér. ak am xaalis. ak am sutura. ak seen njaboot. yàlla barkeel seen mbir. loolu daal lañ leen yéene moo tax bi ñu ñu wàcc wax ci yéen daal ndax kon daan nañ mera ah, ngeen ñaanal ji dégg leen sutura ngeen ñaanal Sénégal dégg la. waaw nga ñaanal Sonko. Sonko Sonko Sonko Sonko moo ko ñor. Sonko ak Diomaye Sonko ak Diomaye ah parce que euh, kii nu mu tuddati. séeréer ak benn lan maanaam kaf lan xam ree bégal doomu aadama waa comme loolu moo tax jàmm ji jàmm ji doy sëkk daal ah. kon kon daal ngeen ñaanal réew mi nawet bi neex dëkk bi am jàmm Sénégal raw France dégg ngeen am leen bëgg bu baax yéen tamit yàlla aar leen sàmm leen ah waaw kon ba am jam daal bu baax kon daal nañ dañoo ñu jaar jëlee ah jërë ngeen jëf ah jërëjëf di kontaan merci jërëjëf Diomaye Sonko Sonko Sonko Sonko Diomaye Guy Marius Sonko Diomaye Diomaye mooy Sonko Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko yàlla ko daan na waaw Sonko Diomaye waaw Diomaye Faye jërëjëf jërëjëf merci jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañ ba ok ok